ami téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati na gëm rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee naa leen nii lay demee ci seen journal de l'arène à chaque fois ma ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar lépp loo xam ne rek daal dina tàbbi ci làmb ji dinañ toog fii waxtaanee ko daal di ko faram-fàccee baaxee leen ko Babacar nuyu naa la. maa lay fay soxna Ami. ci loo nekk. sant suñu borom Babacar suñu couleur yi dafa xaw a neexoo de couleur yi. waa couleur yi ah. Mm, xaw la moom ah. ah. doo ci rafet ah, rafet na moom li nga sol na li ma sol tamit rafet na. jërëjëf merci beaucoup. <laughs> voilà bu baaxee ñu dem seetaani li nga xam ne moo di revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 3 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy fës génn wala boog la ca xëy fuy fës lenn la maanaam Tafa Gueye mi nga xam ne moo waxoon ca jamono yële passé moo xëy tey di waxati Tafa Gueye nag ca la muy waxati moom deuxième tigre de face ba jëm na ci combat Bombardier ak Balla gay numéro 2 ndax daa jàpp ne ki nga xam ne nii moom moo di Balla gay numéro 2 daal loo ci mën a dégg combat pièce la dugg fi mu nekk nii maanaam ndëgg si rëxal nee naa tey ci ci na ci def ndànk ndax nag la ñuy yaakaar ak la ca war a mën a am man naa bañ a doon benn moo tax Tapha Guèye di dànkaafu ki nga xam ne nii moom moo di Balla gay numéro 2 loolu mooy li nga xam ne nii moo nekk yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moom Tapha Guèye yemuta waxati na ci tafaatin la mu xëy xam ne nag ne na tafaatin daal loo ci mën a dégg combat bi ak booy Niang gañe ko la war a def ngir na gën a imposer boppam ci VIP yi jàpp na ne nag bu ñëwee ca combat ba moom di yoot ak di yox ca Ama Baldé mën na ko caa dalaat ngir bañ loola dal ko nag Tapha Gueye ne bu ñëwee moom na ca xëpp kaani paccal lingom dal di xeex ba mu saf sap ne na lii dong moo ko mën a génne ci digganteem ak Boy Niang Boy Niang tamit jàpp na ne combat bi mu jëm mook Balla Gaye la koy valoriser ne na ngir mu ngir combat ba amab dayoo am valeur ne na mooy mu daan ka nga xam ne nii moom moo di tafaatin waaye na bu defee leneen lu loolu moom su keroogee maanaam tama du ay buum moom Boy Niang Tafa Gueye moo xëy tey ñëw di wax loolu Boy Niang mooma nag daa mel ni yëglikaay bi di sunu lam xëy na sampab laaj ne na ñaari combat yi mu signé lan moo ko ci dugal yëglikaay bay laaj de ne na ndax bi sportif la wala lan mbirum xaalis la wala finance sunu làmb moo xëy di laaj lu mel noonu ka mu dëkkal nag di Ama Baldé moom combat royal la signé war ko yéenee bëri nag wala fas ko yéenee bëri le vingt cinq décembre bii nu jëm yëglikaay bi xëy na tey ñëw di ko dànkaafu moom Ama nee na ko vingt cinq décembre day boo yeboo tey ci de ndax nag daa mel ni jigu leen rawatina seen leader ba nga xam ne moom mooy Mohamed Ndao Tyson moo nga xam ne moo dëkk ca te itam ku ne xam na ne vingt cinq décembre am na ca jaar-jaar bu safa saf moo tax yëglikaay bi di ko moytuloo Ama Balde le vingt cinq décembre jamu fas yéenee bëre ak ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moo di Modou Lo keneen koo xam ne nii moom mook Ama de bëreegunu muy Gris doo ban ko nomee Tigre de Fass ba tey muy ñetteel ba fukki at a ngi yoo xam ne ni daal Gris Bordeaux yëglikaay bi na te 2010 la woon ba 2021 bii nu ne Gris Bordeaux daal ngir taal flamme booba yëkkati ko yëkkati turu écrit ba ca kaw a kaw moo ko tëj ci tëj ci tëj ci tëj yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax xale boo xam ne nii tamit moo Gris Bordeaux ñoo bokk écrit mu boot ci ginnaawam ñu naan ko Serigne Ndiaye numéro 2 xëy na tey tamit di wax fi mu nekk nii daal ci digganteem ak Sococim daa mel ni ay menaces daal la xëy teg ne na fi mu nekk nii daal xaar Sococim moom daa mel ni mu ngi ci bëgg a tàyyi wala boog mu nga bëgg a damm ca xaar ba ndax mbir ya leeragut ci moom yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw andil ñu lool keneen koo xam ne fan yii jongante woon na MMA ba ñu gañe ko que xëy nag ñëw di wax la andi defetam ba mooy kot su jabong ma nga xam ne expert la ci wàllum xeex di ak loxo wala boog sport individuel coach su jaboog ne na rëg li ko yóbbu defet bi lenn dong la ab coono bokk na ca maanaam daal sonnu na lool adversaire am épuisé ko maanaam jeexal ko ba mu jeex tàkk nga ne lii daal mooy la ko yóbba la nga xam ne ni moom moo di defet ba nga xam ne moo ko dal bërki démb Sidi Jaxate moom ku ne xam na ne maanaam am na lu mu bëgg def fa nga xam ne moo di ca Kaolack di làmb moo tax nag yëglikaay bi xamal nañu ne daal promoteur u Thiès ba demoon na Kaolack maanaam gëstu ji teere ba xool la nga xam ne ni moom la fa bëgg a def ñi nga xam ne ni moom pare nañu ba fas yéene tëgg nag la vingt cinq juillet yëglikaay bi xëy na tey ñëw nu wax ñu ñooñu muy waa DKR Pape Sarr ak ña ñu àndal combat yi nga xam ne nag moom lañ fas yéenee tëgg bokk na ci nekkuréel Marle Kalmu Ndour ak nga xam ne nii moom moo di Eumeu Sène Senior waaye buur si ma ngeen xam ca bawal ak nga xam ne moom mooy mobile bu Grand Yoff mel ni kon daal gaaya moom seen ñëw bu bees la vingt cinq juillet lañ ko fa yéenee ñëw yëglikaay ba moo xëy ñëw dina ko wax bu nu fa jógee tamit Equivox la ñuy dem lan fay fekk bokk na ci ka nga xam ne nii moom moo di Modou Lo may wax ca combat ba waaye yemu ca de leneen loo xam ne tamit mu nga ca Equivox muy Eumeu seen waaye duñ fa yem les jeunes amateurs tamit seen ndogo ya nga xam ne ñu ngi ko doon def fa nga xam ne nii moom moo doon ca ànd koog seen président ba ak góorandooy ak waa axlu lamb yëpp loolu samedi jiinu génn la amoon mel na ki daara ya nekk ca ak ña nga xam ne ni daal xéewal ya jotale na ci ñoom yëpp jox nañ leen ca mu nekkoon bés boo xam ne itam bu neexoon a neex la mu nga fa nga xam ne ni moom moo di ca Equivox TV meneen mbër moo xam ne waa Equivox TV ñoo ko tëgg muy faraa Fara moom soo bëggee dégg-dégg la mu def maanaam ay ndogu la joxe ci côté bii joxe ko ci côté bee ndax nag Franc dimb daa xëy ci église ba nga xam ne ca la bokk joxe fa ay xéewal jàppale leen dimbali leen waa église ba tamit seereel ko lor neex a neex a leex lu baax a baax maanaam Franc ku respecté église bi la te itam daal maanaam la ko diine chrétien sant mu nga ca saa su xëyee boole ko sport am di làmb moo tax ñoom itam ñu ngi koy ñaanal Franc yemu ca ngoon nga jot Franc jëlate ay ndogu ay xéewal jël mbokki jullitam ñu dëkk ca parcelle jox leen ko maanaam mbër yëpp ñëwoon wuyu si ko ñoom Modou Lo ñoom Papa Sow ñoom Gora Sock ak képp koo xam ne mbër nga ca parcelle dikkoon nga dem fekk si Franc loolu mu nga fa nga xam ne ni moom moo di ca Equivox TV waaye itam leneen loo xam ne nii amoon na démb docteur Macoumba Diouf di parrain wu combat Franc ak seen 2 moo ko doon jiite fa nga xam ne moo doon ca université ak étudiants ya nga xam ne ñoo dëkk lan lat mbenge di ak yoo xam ne daal démb amoon na foofu nga xam ne moo doon ca université loolu démb la amoon waaye leneen loo xam ne tamit nan ko jàpp tey rek mooy le 3 mai mooy bés bi nga xam ne moom la lañ jagleel taskatu xibaar yi nekk ci àddina bi yépp kon nag li am ba des daal mooy journaliste yi loo ci mën a dégg na ñu gën a fonk la ñuy def gën a xam seen bopp gën a jox seen bopp gëdd ndax nag ñoom la yàlla la dogal ci ñoom ñooy jàllale xibaar yi muy jàll addina bi di ci jot waaye patron de presse yi nga xam ne ñoo leen di liggéeyloo tamit nañu xam droit yi nit ña wala buñ ko xamee nañ fexe di ko jëfe seeni ak ñu di leen ko jox ndax nag nit ki boo ko liggéeyloo ba weer dee war nga koo wax wow na wala tooy na mu xam fu muy teg ay tànkam balaa ñu naan état nañ dikk ci patron de presse yi ba pare ñu doog a dem ca état loolu laa wax tey ci 3 mai bi waaye Ami Diouf tey moom loo ci mën a dégg sa garaam bu baax na xanaa rendez-vous moom loo ci mën a dégg dañuy woor danañu def nii tempo tempo gomis wàcc rythme bi ba ca suufa suufa suuf koor gi la léegi mu jeex Aïcha mu nekkoon revue des titres am na solo Babacar sama grand boobu loo ci wax. dafa rafet ak ban rendez-vous yow maa ngi dama am rendez ah, nga solo tey jeeg ni nga ñëwee. <laughs> waaw foog nga am rendez-vous te te te ñu ngi woor nag fi ne nii. waaw dañoo war a tëral ki yëpp ba ci ah, ba koor même bu nekkul woor sax man dama yaru dama yaru. Mhm. te yow sax am na li gars yi di wax yaw sax mënoo am rendez-vous ndax yow ñëpp ne amida moom waaw ah, loolu la wax déjà ah doy na waar moo tax nag. rendez-vous moom bu ñëwee waaw man daal dama yaru maa ngi nii. rendez bu c'est pour moi quoi. waaw mi ngi c'est entre toi et moi. c'est entre toi et moi am na solo. <laughs> voilà mu nekkoon nag euh, li nga xam ne revue euh, des titres. Mm. ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb ci xëtam mu njëkk tey kañ fa gis rek moo di Tafa Gueye 2. ak moom Tafa Gueye waa Tafa <laughs> Gueye moo dal di ñëw euh, ci euh, combat contre Bombardier ak ki nga xam ne moo di Balla gay 2 moom dafa gis ne benn piège la boo xam ne dañ koo tegal Balla Gaye Tafa Gueye numéro un le deuxième tigre de Fass Tafa Gueye numéro di wax <laughs> moom day yaakaar naa ne ci làmb su ci dee wax mhm. waras na bàyyi xel la muy wax mhm. la tax mooy ah mhm. olof ne na lu yàgg ci ndaw lu yàgg ci njaw di njaw waaw olof la de dafa am loo xam ne ni ki kay wax mm-hmm. da koo miin mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. te olof nee na ku jaar ci taatu kër guddi xam la muy meññ da faa jaar ba ça veut dire que tafaa gi dafa bëree ba bàyyi bëree maanaam te laataa moo nekk mbër mi moom magam moo newoon mbër mi ci kër gi di mbay Gueye mhm. ñu koy ziar di ñaan moom mu Mbaye Gueye bàyyi mu ñëw takk ngemb li di bëree bàyyi di tàggat ay mbër di leen formé mhm. defe naa tey su ñëwee te bëri na ak Bombardier bëri na ak Balla Gaye mhm. te itam am na lu mu xam si làmb su jàppee ne combat pièce la mën na nekk pièce si Balla Gaye waaw parce que làmb tout lépp lépp pièce la lépp ay pièce lay doon parce que tamit pour nga gagner sa adversaire il faut nga pièce ko am loolu nag defe naa ne su ko waxee tey Euh, entourage su Balla Gaye dinañ ci bàyyi xel. Mhm. Balla gay de tamit ñi ko ent ñi ñi ko wër entourage du ñu ay ngaaka si làmb. Mhm. maanaam am nañu xam-xamu làmb parce que ay a ko wër ay kilifa ko wër ba formé ko def ko tey mbër. yaa ngi dégg ba toll ba ba mu toll fi mu toll moom Balla Gaye de tamit nekkatul xale bu ndaw si làmb mhm. defe naa tey tam bëri na lu mu ci xam mu xamul lépp it bëri na lool lu mu ci xam kon day defe naa bu jëmee ci bésu pièce Tapha Gueye jàngat jàngat boobu mhm. dinañ ci tirer ay leçons ci waxi Tapha Gueye jooju yóbbaale ko ci bés bi parce que ki ñuy bëreel muy Bombardier dafa nekk mbër boo xam ne mbër bu naqaree natt la mhm. mbër mu naqaree natt mooy Bombardier te seen combat boobu lu ne mën na ci xew muy Balla ak Bombardier. muy Bombardier tout est possible. Mhm. waaw am na solo waaye ba tey rek mi ngi àddu ci euh, ki nga xam ne moo di Tapha Tine moom nee na moom dafa war a a imposer wu ci euh, defe naa ne tey mooy li koy xaar. Mhm. surtout combat bi mu jël muy digganteem ak Boy Niang. Mhm. waaw loolu moom defe naa ne waxuma sax VIP mais gën a imposer si làmb parce que Tapha tout moment da ngay dégg Sénégalais yi ñooy wax de. que fi mu taxaw sax si làmb nekkagul place am parce que ñu bëri boo wax ñu ne la kii roi des arènes la war a doon nangam la war a doon mm-hmm, mm-hmm. loolu nag xëy na li ko yéexal si sama gis-gisu bopp wala mm-hmm. jàngat bu may def mooy ay combat am ni mu ni muy soreyantoo parce que boo xoolee gëj na bëree su ma jumul ca 2018 yaakaar naa la gëjoon bëri moo ko Yékini mhm. Junior stade Amadou Barry ba mu ci jógee ba tey bëriwaatul su ma jumul toog trois ans lu koppi yoo xam ne bëriwul kon xam nga kooku tamit affaire am dafa xaw a yéex ci côté boobu mhm. mais dafa naa tey am na occasion wu amat combat ak Boy Niang mhm. insha allah rabbi ñu ñaan yàlla combat bi am ci jàmm su amee ah ndax day daan wala du daan loolu beneen affaire la parce que la mu bëgg loolu daf naan mi bëgg la bar bi bëgg te itam mu ngi ci biir VIP sax. Mm-hmm. ndax ku bëre ak euh, Bombardier gagné ko. Mhm. bëreeg Balla Gaye mhm. kenn mënutu laa génne ci VIP ci biir VIP yi la nekk bëri na ak Lac de ba ñuy bëree yeen nekk gu ñuy VIP mhm. tey mu ngi bëree ak Boy Niang a ah, bëgg moo tax ma xam ne tamit du doon combat nañ yónni yàgg boobu nga wax am na suñ benn euh, waajoo xam ne day commenter à chaque fois mu ngi naan Babacar kuy yàgg waaw yàgg moom yàgg de am na yàgg mi may àndal mm-hmm. ki ngeen di dégg may wax yàgg maar kooku mm-hmm. moom caméraman la waaw yàgg maar la demandé waaw kon yàgg maar dëkk fii di liberté kat di mm-hmm. taalibe Cheikh Béthio di liggéey fii ci Equivox bokk ci les meilleurs caméraman ci la bokk de waaw yi lamb yu ngeen di gis si mbapat yi ma di ko wane <laughs> yu ci doy waar yooyu yëpp jàppal na yàgg maar a film dëgg la am na solo euh, bu ñu foofu ki nga xam ne moo di Boy Niang 2 tamit contre Tapha en même temps ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 choix bi sportif la wala financier. suñu làmb laaj lool. waaw loolu loolu la teg daal laajte loolu. waaw loolu daal li ci ciy tontu mooy. Hmm. ñaar yëpp laay indi man. Hmm. parce li tax may indi ñaar yëpp. xale la hmm. bi muy dugg ci làmb ay junni lañ ko doon fay. dëgg la tey bu demee ba tollu fii di fayee ko ay dizaine de millions. ça dire que kon. finance dugg na ci mm-hmm. côté mm-hmm. waaye tamit bu demee bay am adversaire bu toll ni tey Balla Gaye ak ay tafaatin ak yooyu itam kon def na performance ci sport bi kon maanaam côté yépp da cee def performance ba tax tey mu mën a am mm-hmm. combat yi mu mën a am ba bañ ci mu ngi ci biir combat bi maanaam sportivement baax na si moom financièrement tamit baax na si moom muy ñaari combat yi moom Boy Niang numéro 2 dëgg la mm. euh, am na solo ki nga xam ne nag moo di Ama Baldé ñu seetli ne euh, seen combat combat moom ak euh, Modou Lo 25 décembre lañ ko bëgg a tëgg. incha allah euh, mu am nag syndrome boo xam ne dañ ko wax syndrome mu Tyson 25 décembre jugu ko woon est ce loolu tamit euh, du doon loo xam ne mën naa laal ki nga xam ne moo di Ama Baldé loolu la yéen kaay gi samp ab laaj bi mu xëyee. waaw yëgle kaay bi loolu lépp dànkaafu la. parce que mhm. wala fàttali. Mhm. parce que 25 décembre ku ne xam ne bés la woon boo xam ne ci moom ndaw Tyson. Mhm. ah metti woon na. a <laughs> promoteur bi moom datam la am muy la vingt cinq décembre régulariser ci combat muy Luc Nicolaï ñu ko ñaanal yàlla combat boobu mhm. yàlla na ko yeggale jàmm bu jëlee ci réussite mhm. yaakaar naa ne ama itam conscient na ci que ne le 25 lay bëri. Mhm. te itam yaakaar naa ne est-ce que Ama dina toog di bàyyi xel naan la daloon Tyson. waaw loolu moom parce que Ama doxewul doxewul noonu. Mhm. Mhm. ko seqal tamit noonu mais boo xam ne daal buñ ci bëri incha allah rabi yàlla nañu ko fekkee tal ko moom. faaw defet am dëgg la non am na solo faaw am ku am na solo bu ñu foofu nag ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux euh, ñu wax rek Gris Bordeaux peine à allumer le flambeau depuis bañ ko defee troisième tigre euh, tigre de Fass c'était en 2010 boobaak léegi nag moom gis nañ ne ba tey mbir mi tàkkagul. waaw des na de par rapport ak ni ñu ko doon xaare mhm. ci côté niveau. Mhm. ci côté yenn combat yi parce que perte na fi ay bés yoo xam ne. Mhm. yaakaar naa ne ah metti woon na mën nañ ci lim ay bés yoo xam ne nii euh, am na fi. parce que boo xoolee su ma jumu ci diggante bi bàyyi ma ñoon la fi gagné ak Tyson. mais à part ñàkk na fi mook Balla Gaye ñàkk na fi ak Modou toog na fay at bëriwul yooyu yëpp nekk na loo xam ne ni daal xëy na ñu ngi doon xaar tey niveau bi gën a kawe mais nag ba tey loolu lépp si sport la ah. parce que tamit li koy waral loolu lenn la rek ay adversaire ngay am li ngay bëgg la ñuy bëgg mhm. su ngeen di daje ci bés comme li ngay bëgg la ñuy bëgg nag ça veut dire que bu ngeen ñëwee moom xëccoo lay doon mhm. xëccoo nag du tekki ne force damay yóbbu parce que bu doon loo moom la boo ñëwee da koy jël yóbbu mhm. mais nag waa ji day entraîné ba fees nga entraîné ba fees ngeen am ay mbokk ku nekk say mbokk soñu la ñaax la ngeen ñëw jàkkaarloo mais boo xay na d'ici quelque temps bu amaatee yeneen combat mhm. xëy na bu dee loolu da koo të xëy na dina mhm. ko jéem a tàpp waaw moom moom vraiment ko xam ci njàmbaaram waaw non mama non Gris Bordeaux mhm. moom mbër mu mag la dëgg loolu moo ko indi am na solo bu ñu jógee foofu nag ki nga xam ne moo di Serigne Ndiaye 2 moom euh, il menace mu ne je ne vais pas attendre ki nga xam ne moo di Sokosim maanaam du xaar daal Sokosim ah waaw xëy na du xaar Sokosim parce que comme moom ak Sokosim biraloon nañ ne taxaw na Habib Legrand tëgg na ko muy combat boo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais yi wala amateur lamb yépp ñu ngi ko doon xaar parce que li tax mooy ñoom ba pare tolloo taxawaay ci kaw masha Allah di ay doomi mbër waa safurla boog di mamaa yi jéggulu waaye dëkk ci ay mhm. mhm. mhm. ñu dëkk ci ay goxu mbër defe naa nag bu dee dafa mënatul a xaar ah loolu bu keroog am na ci loo xam ne ñun xëy na duñ ca mën a sori la cay mën a nekk rek mooy promoteur lañ waxanteeloon nañu waxtaan rek man daal li may bëgg ci nit des fois wala ci yenn mbir yi balaa ñuy dem fenn fi di ko fa étaler na nga ko wax ak ñu ko seqal ba ngeen xool ndax mbir mi mën naa dem wala mëntu a dem su ngeen demee nag ba mbir moom mënatu la dem ngeen ut yeneen solution mhm. waaye pour man teel a coow bi wala teel a kii bi moom mhm. pour man am na solo c'est pas important quoi pour moi. dëgg la mhm. euh, bu ñu foofu ki nga xam ne nag moo di Kotsu Jabong waaw noonu la kay Kotsu Jabong ah moom euh, mu ngi ñëw ci defetu ki nga xam ne moo di rëg-rëg mhm. nee na adversaire am da ko euh, sonal ba mu sonn moo tax defet bi gën a yomb daal waaw Kotsu Jabong di suma xarit maa ngi koy nuyu ah. maa ngi koy jaar bu baax a baax mu ngi Sénégal actuellement mhm. defe naa ne moom tamit sport de combat lu mu xam la bu ci xëyee di ci wax rek parce que boo xoolee rëg-rëg moom ak lu mën a xew ni ñu gisee image yi ça veut dire que moom coono am na ci biir combat bi coono boobu nag xëy na moo waral yenn yi ci am yëpp am ci mais itam ak koor gi mu boole woon yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne nit ki mënoo ne da ngay gagner éternellement itam c'est mhm. impossible loolu moom ku koy xaar ci sport sooy boo nga lalli manta mhm. ne da ngay xool yi mhm. ëpp ci àddina bi doole dañ ne ay bés day ñëw ñu corriger leen. Mhm. day dal Real Barcelone Paris. gens yi dégg ay Bayern ay Manchester ak. Mhm. club Liverpool bés day ñëw ay club jàpp leen yu ndaw régler leen ba ñu ne cocc. Mhm. loolu mooy cas loolu mooy lu sport. et puis loolu mooy neex lu sport. mais bu fekkente ne da ngay gagné di gagné di gagné rek. dootul lu mën a ñàkk loo xam voilà loolu <laughs> mooy loolu mm-hmm. kon dañ koy encouragé rek di ko ñaanal yàlla li des ci kanamam mm-hmm. nekk ay ndam waaw ah, fi ñuy fi ñuy xamee jàmbaar dëgg mooy koo xam ne dafa daanu ba pare euh, mën a jógaat jógaat ah, relevé waaw taxawaat dem di dem voilà waaw mi ngi noonu nay neex amee bu yàggee <laughs> des fois daa war a safkaani de ah. dafa am solo noonu day neex sax nag bu ñu jógee foofu ki nga xam ne nag moo di Sidi Diakhaté ci gala deux gala de yoo xam ne mu ngi ko bëgg a ci zone centre bi daal dina dem fële ca Kaolack ci samedi bi pour prospecter kii bi. maanaam seetlu dëkk ba xool lieu ba fa mu ko bëgg a defee. yàlla na ko réussir su Sidi Diakhaté di ko am yëg ci nit. Mhm. di ko joxe cër di promoteur nekk fii ci sees di suñu papa di suñu nijaay. Mhm. ah vraiment loolu mu bëgg def ca Kaolack tamit lu am solo la Ami mhm. waaye daal. loolu yàlla na ko yàlla def mu yeggale ko ak jàmm parce que tonton moom. suñu kilifa la suñu lépp la. Mhm. waaw. Mhm. bu ñu jógee foofu tamit euh, maa ngi ko doon fàtte sax nag ah, Babacar. ki nga xam ne ah. ah. kon demal ci mbirum rendez-vous nga bëgg a ñëwaat. non rendez-vous moom waxatu bàyyi sa caaxaan yi rendez la. <laughs> foofu nag euh, ñi nga xam ne ñoo di waa DKR ñoom itam seen combat yi nga xam ne tëgg nañ ko pour le 25 juillet incha allah mu nekk diggante Neko Réel ak Marley mobile de Bour Eumeu Junior ak nga xam ne moo di Kalmu Ndour. loolu dama si nuyu Pape Sarr. di doomu Pikine wax dëgg yàlla bu ñun wax dëgg yàlla. ñu jiite structure bi man naa ne xamuma leen. mais Pape Sarr moom xam naa ko te ci biir la bokk. bari ki démb rek la preuve bi ñu dajee Pikine waxtaan nañ ci. yaa ngi dégg pour cinq 25 juillet seen combat yi mooy combat yoo xam ne tamit ñoom comme li may wax rek gis nga làmb ji am na ñu ci ñëw ñoo xam ne ay bees lañu. taxawal ay combat waa DKR yi ci la ñu bokk. ci la ñu bokk. est-ce yaa ngi dégg moo get ci la bokk euh, taxawal nañ ay ñoom ñu ñëpp bëri nañu bu ma leen doon lim du ñu jeex taxawal nañ ay combat yoo xam ne wax dëgg yàlla soo ko déggee sax da nga naan est-ce que du ñu dañ yàggoon ci làmb mhm. mais loolu mbooloo ma moo lay mhm. daal wax dëgg yàlla mhm. ah bis yi bis bi moom ku ca dem da nga xam ne gis nga làmb parce que nag Kalmu Ndour ama mobile 2 bu Grand Yoff. Mm. pour Sine. Mm. ah loolu Marley nekk réel. loolu comme c'est autre chose le 25 juillet dañ ko fekk <laughs> am na solo mm-hmm. voilà Equivox TV lu fa xewoon. waa Equivox TV moom li fa xewoon ci weekend bi bëri woon na. Mm-hmm, bëri na trop sax beaucoup kii parce que li tax mooy comme niñ ko xamee rek. Mm-hmm. Equivox moom à moment rek. ci làmb da ciy dox ak yeneen information yi mais lu mu si mën a doon dañuy fexe mu nekk qualité rek parce que itam ñun qualité bi dafa ñuy gënal quantité bi te tamit loolu la ñu loolu mooy slogan wu Equivox qualité bi si image. Mhm. qualité bi. Mhm. ci li ngay seetaan. Mhm. loolu lépp dañ ci def le tout. moo tax ba yaakaar naa ne ku ne gis na fa Modou Lo wax na fa bërki demb Eumeu Sène dem nañ këram seeti ko. yaa ngi dégg ak yeneen yoo xam ne am na fi. dem nañ kere ci les jeunes amateurs ak ndog yi ñu doon joxe ñoom góorandoo yi. ma ci profité di leen ci jërëjëfal loolu am na solo trop góorandoo yi mook ñoom Balla Diop. ah ñoom moor bu parcelle ñoom Ibra Taal bi sëñ Mbàkke Medina ñoom maam Jaara bu Ngel Jon Siga bu Tafatin vraiment maam Jaara tamit beneen bi ñoom ñëpp awa wan Franc tamit ñu gis ko ah, def vraiment def nañ lu rafet bëri ki démb mhm. ñoom jeune amateur yi fa nga xam ne moo di ca Pikine mhm. bët set Franc tamit mhm. di boo xam ne Vox Arena moo ko tëgg mu defaat lu mel noonu même chose bi ça veut dire que dem na ci église bi mu xëyee ànd ak waa Equivox joxe fa ay ndimbal ca fa mu bokk mhm. parce que nit ku ne am na foo bokk xul mhm. yaayal kaafiroon jaa tax <laughs> dëgg la waaw ku ne am nga loo gëm ku ne am nga looy jaam mhm. yaa ngi dégg la ca des mbiru suñu borom la dana koy bàyyee ñu ngi ciy profité du nuyu chrétien yépp franc loolu mu def vraiment ci église ba rafet na te itam ñoom seereel nañ ko que ni ku respecté église bi la loolu nag moo am solo sa diine boo ci bokkee da cay joxe cër ba mu mhm. laaj mhm. di ca def lañ la sant euh, voilà mhm. terewul ba ngoon jotee di démb ci dimanche ji woote waat na ca parcelle mbër yi ñëw ñoom Papa ñoom Modou Lo ñoom Gora Sow ñëpp ñëw ñoom garga de mu joxaat jullit yi ay ndogu ci weeru koor yi mm. loolu moo lay wan kon damay dégg ñu naan ay dialogue islamo-chrétien mm. Sénégal ay dialogue amu <laughs> fii ñun amuñu problème bay dialogue <laughs> dialogue ji ñaar ñu am problème la ah. mais ñun ñu ngi ci Asia Sénégal moom bu ñuy wër dialogue islamo-chrétien nañu génn Sénégal dem feneen ah. mais pas suñu réew ah, ñun am newuñu ci loolu mais li mooy wone dialogue islamo-chrétien dañoo amul problème bay dialogue ñun ñu ngi dund ñu ngi dund entre mbokk ak mbokk buñ ñu dugal moo dialogue loolu ay affaire tubaab la tubaab yi bu ñu dugal ci boobu zone ñu koy nangoo ay dialogue islamo-chrétien amul fii Sénégal fii ñi fi ne di dundu ami ñu ngi ci afiya ñu nag chrétien yi man dama am ay mbokk chrétien da nga koo am mhm. gomisme am ko keneen am ko mhm. keneen am ko. Ah, eh, waaw njaago te terewul ñu ngi ngi. njaago bamba njaago bamba ba pare seen waa ay chrétien. ay kon kay wéle problème kon ñu ngi ci jàmm yal na yàlla aar jàmm jooju. vraiment di rafetlu loolu Franc def démb. di nuyu tamit ki nga xam ne nii. Mhm. moom mooy parrain wu combat Franc Tyson di docteur mhm. Macoumba Diouf démb ci. étudiants yi nga xam ne ñoo dëkk lat ménge ah bi ñu defee seen bachelier yu bees yi ñu doon dalal amoon benn conférence ñu invité woon ko defoon ko seen parrain d'honneur mu nekk seen maire loolu lu rafet waa Latmingué yëpp mm-hmm. rawatina monsieur le maire docteur Macoumba mm-hmm. suma mag suma xarit ak jabaram Louis Senghor mm-hmm. di wax ne daal loolu moo amoon ci weekend bi ak solo waaye tey tamit nekk date boo xam ne vraiment date bu mag la boo xam ne à chaque mai de sañ suñu xel la ciy dem mu nekk journée mondiale euh, de la presse. loo ciy wax Babacar. li ma ciy wax daal mooy journée mondiale de la presse comme ni fi ma la ci daanee la laa ciy wax rek tey balaa ñuy dem naan. Euh, état bi ak mhm. presse bi mhm. nañu wax patron yi yore presse bi ak ak ak emploi yi ba pare mhm, am na solo wolof ne na weñ gaa nga bañ ca ba njaxaat nga mbir boo koy faj da ngay dem fa mu doore dëgg defe naa tey bu fekkente ne journaliste yi am nañ benn traitance bu jaarut ci aw yoon fa muy jëkk a dooree ci li ñu seetlu ñun ca ñi leen di liggéey loola mhm. ndax jégg nañ fi ba tàyyi ay journaliste yuy ñaxtu ci ay problème ay salaire ay nangam sangam mhm. nit ki nag dama gëm ne boo ko naree liggéey loo weer dee doo ko fay wala nga di ko dawloo mhm. c'est mieux vaut nga bañ a mi ca patron presse laa koy njëkkee ba pare buñ ca jógee ñu dem ci état ba la mu war la ak presse bi bu keroogee ñu door ko koo laaj parce que balaa ngay digle cango ami da ngay sango ba set mais daf ma yaa ngi dégg di leen ñaanal jàmm. képp fu ci waay mën a nekk rek. presse en ligne bi. presse écrite bi. audiovisuel bi. Mhm, yaa ngi dégg mhm. rajo ñoom ñëpp. nuyu dañ ci am ay xarit am ci ay mhm. ci. ñu nekk ñoo xam ne tamit vraiment patron presse yi tamit ñu ngi mu gën leen a dooleel. gën leen a dimbali gën leen a may loxo mhm. waaye ñu ñoo xam ne ñu war a néew doole gën a tax ñu koy feete bien sûr euh, rappeler état seen engagement waaw euh, ci presse bi ci presse ñoom itam loolu nañ ci bàyyi xel ami mhm. état bi li mu engagé wu ak presse bi mhm. na ci gën a bàyyi xel seen àq ak seen yelleef parce que presse moom jottali xibaar la war a def presse bi tamit nañu bëreeg seytaane ba ñoom tamit lañu leen sant nañ ca ne maanaam informé loo xam ne lu leer la te wóor bañ a tël jël tamit presse def ko yetu xeexukaay. éthique ak déontologie mere rek jaar ci presse bi di ko wax ay dégâts ak ay musiba yooyu tamit nañ ko moytu loolu defe naa du professionnalisme te nekkul loo xam ne nañ ci part de responsabilité développement réew mi noonu jàmmi réew mi noonu parce que ñoo amee information yi des nag dafay am information yoo xam ne kenn di ko divulguer ndax la tax mooy boo ko divulguer mën na tas àddina mën na tasum réew c'est mieux vaut que na loolu ñu tegeeku ne le xool li nga xam ne mooy tax réew a di la ñaanal jàmm di balu ñëpp ak am na solo di ci fàttalikuwaale rek suñu waay jiitu yi nga xam ne rek ay journaliste lañu woon ñoom itam mhm. ku ci mel ni rek suñu papa ja Sidi Lamine Niass ak ñoom Maria da Silva yal na leen yàlla yërëm bu baax a baax ku jar a ku kooku. kooku ku mhm. jar a fàttali ko. Mhm. macha allah jàmbaar pire. dëgg la diine pire si mhm. Lamine Niass yal na yàlla am na solo xam naa nag foofu la ñuy jaaree rek ndarka ndarkepp xibaaru tey waaye tamit du ma quitté te remercier wu ma ki nga xam ne moo di Mamor Babu kooku dafa nekk ca Espagne di ñu béggee Babacar luñ dugg mu aimé luñ dugal mu aimé. vraiment amuñu fayam à chaque fois dama naan nuyul ma Babacar Mamor Babu nekk ca Espagne. Mamor Babu maa ngi lay nuyu depuis Espagne ah. di la bégg di nuyu Youssou Ndoye l'international ca Espagne am na solo waaw <laughs> jërëjëf fii la ñuy daal di yem di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf